alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ah, mbokk jullit mbokk jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax ne gëj nañ waaye nag lépp rek ci liggéey bi la tënku woon gëj nañoo ñëw ci ndénkaane yi ñu doon dénk sunu jigéen ñi sunu jabar yi sunu rakk yi sunu mag yi bàjjeen yi ak tànta yi mu nekkoon l'ami des femmes yow sama mbokku jigéen maa ngi lay fàttali di la dénk di la wax ni ubbil say bët nga xool àdduna bi melal ni ku taxaw ci kaw rekk xool tey lan nga gis ci àdduna bi lan mooy li ci baax ak li ci baaxul soo paree nga def benn synthèse ci li baax ak li baaxul ban moo ëpp ginnaaw bi nga xoolee ban moo ëpp nga xool ban mooy bi boo yéegee ci njombaxtalu àdduna di xool dangay gis ni li ëpp ci nit ñi dañoo labat àdduna ngir sëy ak moom lan moo tax bëgg tur lan moo tax bëgg alal lan moo tax bëgg àddina te àdduna mi mbokk mbooloom ñi ko labatoon ba takk ko mujj na leen a fase te fa mu leen di fase day fekk ne takkaat day wees ñu jëloon àdduna foog ni alal rek moo koy defar ba ñu demee ba àgg ci alal wëlbatiku nañ di laat alal ndeke lan lay jëriñ ñu jëloon àdduna foogoon ni tur rek moo koy neexal ba ñu demee ba àgg au sommet ci wàllu tur mujj nañ ci làqu la ñuy nekk ndax xam nga ki nga xam ni foog na ni àdduna ku am tur rekk yaa ko moom dafa fàtte siiw du jàmmi boroom boo ci tollee du ko ut lu la nit wax dangay foog ñi dalaa xeeb lu ñu la tere danga naan ñii dañoo bëggee waaye boo demee ba àgg ci la nga doon ut dangay mujj di làqu tey ana waykat yi doon uti àdduna bi ñu demee ba àgg ca kaw yore ay milliards yore ay sociétés yu bëri fan lañu mujj seeni oto vitre teintée la dootuñu bëgg ku leen gis ñoom dootuñu bëgg a gis kenn muy innaka an taqula la misaas kon ku dem ba ca njombaxtaan la rekk wàcce moo ne sa kanam ana mbër yi doon ut àdduna ba ñu demee ba àgg ca kaw fu ñu mujj toppaat di wër kon yow sama jigéen maa ngi lay fàttali ne mboolem marchandise yi dajaloo ci àdduna marchandise la waaye day yàlla nee na bi ko ci gënal yonent bi ne bi ci gën mooy almaratu saaliha ad dunya kullaha mataa wa xayru mataa'iha almaratu saaliha jigéen ju baax kan mooy jigéen ju baax mooy jigéen ji nga xam ni jël na boroomam def ko muy boroomam fexe ba ay digleem mu taxaw ca jéem ca lëm fexe ba ay tereem mu jéem koo bàyyi jël yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk njiitam balaa def laaj ko balaa wax laaj ko kon jigéen jooju mel noonu mooy jigéen ji ñépp di wër yombul waaye nag su jàppee bañ a bàyyi mooy jigéen ji jur doom ju baax mooy jigéen ji nga xam ni fu mu taxaw ñu naw ko yow sama mbokku jigéen taar nekkul ci yi ñuy diwoo ak yi ñuy sangoo waaye ndekke taar mu ngi nekk ci jaamu yàlla al jamaalu jamaalul bawatin taar yi mooy taaru biir xol bu rafet xel mu rafet jikko ju rafet topp borom bi te muñ dogal yi yal yàlla defal ñu dégg ak topp defal ñu leen ko incha allah rabbi